asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Malikia TV ñu dellu si waat ci seen émission seen tàndarmay fas yéene ànd ak suñu oustaz bu tedd bi di Serigne Mansour ñu nuyu ko ziar ko ndokkeel ko ci bëccëgu koor gi. Serigne Mouhamed ñoo ngi laa delloo nuyoo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo safoo Malikia TV leeru Maodo ci biir réew mi ak bitim réew. rawatina émission bu am solo bii ngay def ñu di ko seetaan ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. yaa Oustaz kii benn sportif la joueur la bu am match bu métti ci biir koor gi ñuy laaj ndax lislaam may na ko mu dog koor gi bu footballee matcham ba pare mu fay. jërëjëf euh, Mouhammad masala moomu dañ koy tudde ci alfiqhul islaami wala fiqhul waaqaa minal mustajidaat mustajidaat mooy masala yoo xam ne dafa bees fekk alquraanul karim àdduwu ci woon sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam it àdduwu ci woon te gannaaw bët bu set dañuy wax ne alquraan moo wax ne maa faratna fil kitaabi min shay amul lenn loo xam ne alquraan ak sunna wala jurisprudence bàyyi na ko warees na ko mën a wutal àtte loolu nag moo tax gannaaw masala mu bees la boroom xam-xam yi dañ ci wuute kiy seetaan ak kiy déglu ñoom ñëpp nañu xam ne masala la moo xam ne boroom xam-xam yi dañ ci wuute wuute gi li ko jur lii la ndax football fola bu njëkk bi muy tàmbali fola woon soo jàppee ne fola kon joueur boobu nga xam ne mooy de football daganul ci moom muy dog ndax kenn du dog ngir fo dafa am benn régal ñu di ko tudde qaida usuliya usul benn branche la ci l'islam ñi jàng ñépp war rawatina droit islamique war nañ di ko jàng régal boobu day wax ne al hukmu yaduru ma la illa haythu darat wujudan wa adaman mooy atte boo gis dafa am illa cause bu ko tungoom bu cause bi rotee rek atte bi day rot ànd ak moom loolu mooy lan ñeneen ñi dañu ne football nekkatul fu métier la te itam loolu ku ne xam ne ne léegi football métier la ku ne xam ne milliards yi ci nekk ak enjeu bi su dee métier dañu ne woon nit ki su yoree métier di ci dund léppam aju ci koor ñëw mu war a def métier moomu mu nar ko jural coono boo xam ne du mën a def métier mi te métier mi ci la dundam aju ñu ne kon day dog ba koor gi jeex mu fay donte nag dañu naan métier mi xaraam na du jëmmi métier mi moo xaraam xam nga fuut bowl ñaari baat yu ñu boole la fuut ci àngale mooy ci ndëggu bool mooy bal ñoom ñaar lañu boole mooy jël bal dóor ci tànk kooku xaraamul mais li ci wàll si biñ koy def góor ak jigéen jaxasoo short yi ñuy sol génne awra ñu di fa publicité sàngara et cetera et cetera faat waxtu yooyu moo tax mu xaraam mais jëmmi jëlbal dóor ko xaraamul kon nag bu boobaa même métier mi bu xaraamee am na yennat ci boroomi xam-xam ñoom dañoo wax ne bu boobaa joueur boobu mën naa dog waaye kii seetaan na xam ne loolu ñu néew ñoo ko wax li ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne joueur boobu daganul muy dog ndax loolu d'ailleurs bu ngeen seetaanee sax ci année yi jàll ñi ngi lim fukki joueur yoo xam ne dañu leen a génne ci terrain bi ndax dañu wooroon waaye daal ci gàttal ci tënk ñenn ci ay boroomi xam-xam rek ñoo daganal loolu waaye nag li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañu joueur boobu daganul mukk muy dog wallahu taala aalam jërëjëf yaa oustaz tontu bi leer na yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp kon nag ba beneen incha allah